barki Serigne Bamba la ilaha illallah lii laa xamoon lii oui lii <laughs> ay waay trace oor bii ay waay lii lan la lii li moo tax artiste u àdduna bépp di la wër lii rek la lii rek la lii leen jaaxal mais lii la ah, nag maa am artiste nag barke alxuraanu karim maa am artiste waaye lii maa jàmm la yow waa kii kenn laa ilaha illallah lii tax artiste nigérien yeeg ivoirien yeeg kodo congolais yeeg togolais yeeg ñëpp bëgg a photo ak moom à grand marché ñum laa ilaha illallah xoolal ma lii même ma daal ci kanam Abdou même ay mooy sabban day ay waay waaye yow fii fi lii la la ni yow ah laa ilaha illallah ay waay lii xamoon naa ni daañu la jëlee lii de Amélia lii nag mooy faaf lii lañ naan faaf ay waay Sénégal képp yow la ñuy xaar Sénégal képp moom la ñuy xaar man moo jox ma kañ ay waay xoolal laa ilaha illallah ay waay lii ah ici la ilaha illallah waaye maa jongo ma artiste waay eh ça ay waay lii la Vivi Vivi lii ma jàmm la ah ku weddi ne star la rek na la fekk ci dëkk yi nga xam ne xamuñu fi kenn dëkk yi nga xam ni star mënu fee jaay lu leen saf ku weddi ni star la na la fekk fii man maa la fekk fii ñu lay xëccoo bëgg a wax bëgg a foto ak yow barke alxuraanu karim lii wuy lii wuy lii ay waay way samanta ay yaay <laughs> ay waay lii muy muy star nag boo koy wax star daal star Emilia Ah. lu ne mën nañu koo indil Sénégal la lu ne xaar di si bool ak platine ak ordinaire ak valeur ak ko xaar daal xam naa ne lu ne mën nañu ko indi lu ne barke borom Tuubaa lépp lu artiste di laaj ak star mi ci yow tese tese tese laa ilaha illallah mi ngoog arena bi BK arena mooy arena bi gën a mag fii ci Rwanda fa lañ defee mbir ku nekk indi na sa artiste muy def lu ko saf gis ku nekk indi na fi sa artiste muy def lu ko saf waaye man sama artiste a ngi nii laa ilaaha illallah loolu wuyul lii gis laa Sénégal yi sax loolu. Noom Sebo. Noom Sebo. Yeah, Noom Sebo's a good day. <laughs> we love you guys. La ilaha illallah. We love you. Love you more. Thank you. See you. Okay. nit de kii. ak yi baa ngi nii xool leen ndeysaan xaral ndeysaan moom la ñuy mooy star bi nag Emilia wuyul wuyul wuyul wuyul moom la ñuy man la mu jongoma rek dama koo ragal man waxatuma nag la mu est wuyul wuyul wuyul man koy expliquer histoire ndeysaan ndeysaan xolal ndeysaan feeñu na ko ndeysaan Je me mets kenn du yow kenn du yow kenn du yow sama artiste bi foo ma woo ma wuy foo ne ma fekk la fa. da neex a jaay produit bu neex a jaay nga doo lamb produit bu neex a jaay nga lamboo da lay xëccoo lii. la ilaha illallah. am na ko ni ma bëggee mosoon. I think tonight, bye. ñi doo seen morom yaa leen gën a nekk star fuuf barke alxuraan karim yow rek non man je suis fier de toi daal je suis trop fier et trop content. Mbacke dama ko Mbacke mi ngi lijjanti sa. Barke Serigne billaahi wallaahi mi ngi dugg léegi mi ngi dugg léegi lépp dina dugg. lépp a ngi dugg. lépp a ngi dugg kenn du yow. kenn du yow léppay ñëw barke borom Touba non Vivi billaahi yaa neex a jaay nag Vivi yaa neex a jaay Vivi. ah Viviane neex a jaay mais lii yow jaay la dafa yomb nekkul ay pro. waa lii fan la jóge naka jekk ma xam ni mooma a. Versailles moo defati lii. des na. déedéet déedéet du ma ko nag du ma ko laal du ma ko laal du ma ko laal déedéet déedéet maa bañ mm, mm, mm, lan. daa ñëw yeneen. Eh, déedéet man mënu ma ko xaar. Ah, waaw waaw borom la te lii lii du bis bu ndaw. lii lii c' est l' international. amiin yaa rabbi Versailles kenn du moom Moussa Versailles nit ku baax la dalaa bëgg nag. dalaa bëgg waaye nag mbir mi ci yow mbir mi ci yow lii. la ilaha illallah wuy loolu.